xasiitu daara badal naa bu nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp di dénk képp ku nangu ku ko dénk ñu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah mooy jëfe ay digalam di bàyyi ay tereem loolukat mooy benn bunt bu nit mën a jaar mucc ndax moo wax ci alxuraan bu ëllëgee ñey jëkk a génn taxaw ne mooy ñi nga xam ne dañoo fa moon seen tànk teg ko ci taqwallah nee na ñooña bant du leen xuri kenn du leen joxañ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ñu nekk ci bis boo xam ne nit ñi miin nañ ko waaye léeg-léeg fàttalante ci ak jullit yi du yàq dara bis bu nekk mooy ban mooy bisub aljumaa aljumaa nag amoon na bépp dayoo waaye ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee suñu boroom digal ko mu di ci dajale mbooloo di ci julli julli aljumaa tusbaar ñu julli ko ñaar moom moo xam lam ca doon lam ca jublu waaye nag dolliwaat na aljumaa ji lam amoon yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne amul benn bis bu jant di fenk so bu ca mel ni ajjuma ci ngëneel bis bu jant fenk rek ba so bis ba jant fenk ci aljuma so ca ajjuma ca gën neena bis bis la bo xamne ne nga ca wow sa bu julit bi julle ba sëlmal ñaan ñaan googu yalla du ko delo mo xam daa julli suba mo xam daa julli takkusaan timis ba julli gee gi nga xam ne bu ajjumay tàggoo ca la koy jullee diggante bi it saa bu ko soobee bu jàppee ba set jëfandikoo lu yonent bi sallallahu waxoon ne ku ko ci man saa bu jàppee ba noppi na julli ñaari rakka bon ndax julli ak jàpp jàpp ak julli boobu ay seex lañu saa bu ñaanee yàlla daf yàlla yàlla du ko du ko delloo kon boog la ca mat sant yàlla bari na bokk na ca def gëm ñu def ab jullit te wax ak ñun ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumaati fasaw ila dikrillahi wa darul baya saa bu ngeen yeewoo ñu ne tey la bisub aljumaa ñu noddu mooy noddu gii nga xam bu noppee ca la ñuy tàmbali xutba ba fu mu nit lu mu doon def na ko bax lu mu doon def na ko bàyyita dem ca loolu nag li muy tekki mooy jox yitte bisub aljuma ak jullit aljuma jot na sëkk yonent bi sallallahu alayhi ne ku fab aljuma teg ko nii ci kaw loxoom bu nii nii mu wadd noonu la ko jàppe su ko bàyyiwut delliwut gannaaw yàlla dana fa ab tampon tampon bi muy tamponné xol yu tëju ya këyit wu nekk ci këyit yi ñuy lijjanti ci kaw suuf daa am tampon buy tax mu doon këyit wa dëgg-dëgg am na lu ñu ciy bind bind ko ci bind ko ci ba mu ëpp ba mu bari lool waaye fekk tampon ba nekk gu ca tekki woo dara suñu borom mi ngi wax ne ci suratul ci suratil baqara bok ci suratil baqara fam tambali alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin ñu ne ko humul man humul muttaqun mun alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñooñu seen mbir leer ñoo ñi gëm yàlla dëgg-dëgg gëm yañ gis atta ca yañ gisagut fab seen tànk teg ko fa mu leen ko teg lool lu ñuy def bu julli jotee ñu ne ko fa ñukk dem ca ak ku leen ko mën a digal lu ñuy liggéey it asaka la yi jëkk a génne door a génne lañ ca bëgg a génne di ko jox ku mën a doon nee na ñoo nee na loolu ku ca nekk yaa ngi ci jub te bu ëllëgee doo ko réccu xaaj ba ca des mooy ñi lànk inna alladina kafaru lànk nag tekkiwut bañ a doon ab jullit yaa gën naa yaatu loolu gën naa yaatu loolu suñu borom ne sow penku la nga ne soowu la rek yal nañu ci yàlla mu sow inna alladina kafaru sawaun alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون loo wax wax wax wax lañ bëgg a dégg dong la ñuy bëgg ku leen ko wax ëllëg mi ngi ànd ak lii ànd ak laa mën nañoo gëm fii ci àdduna ne bisub aljuma mën naa ànd aku tàngoor ñu nangu ko mën naa ànd aku sedd ab sedd ñu nangu ko mën naa ànd ak taw ñu nangu ko mën naa ànd ak liwub kese kese loolu yëpp mën nañ koo nangul ajjuma ne mi ngi ànd ak bisub aljuma bi waaye boo nee àllaaxira nii lii ak laa ak laa ñu ne ah wane ginnaaw yàlla ñu ci àll musal lañ leen ko teg mooy xatama allahu ala qulubi yàlla dafa tamponné tampon boobee nga xam ne ku mu ko tamponné ci xolam dootu dégg dootu gis mën na déglu waaye dootu dégg xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة لكم مور ولهم عذاب عظيم يعني إن شاء الله موسى نافق تبتا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما ينافق كن بني فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع nañ مويت moytu دي di santaane liggéey boo xam ne aljuma lay xana bok ñu japp ko gëna bu julé aljum ajum ba noppi ndax kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena na bayyi wut nakal fayda aljum tek ko fi ci sa ko loxo boo nee mu wad yalla dana tamponé ca xolam ba te bu boba dootu gis dootu dik yalla ci yàlla musa dal nak nag loola fa muy jëmal loola la fay la koy yóbbee nit moy nit ku sàggan sàggan nak moy nit ki dem ba xamatu li tax yalla sakko aduna ko jay mbolo ñoko jay ak pal moko jay te neena won fala falaa taxurannakum dunya fexelen ba aduna ak li ci biram bum len wor wala yaghurrannakum billahi alxarur na ngeen fexe ba seytaane bum len wor aduna ni muy war a nit ko jige go fi legi jige go fi daloon na ku bax ci ñu dëkk ña day dem di dem di dem ba yàgg muy gis yu kenn dut gis wala boog ñu bari dut gis ndax jege suñu borom subhanahu wa taala benn bis mu xëy shaytané ne kii bu ko nit ñi xamee ba mu sàkk ay moroomam moom duutu amub liggéey moom seytaane dana torox fii torox na fële ba noppi waaye fii lay gën a toroxati dana fés ab sagam dana sàggiku xiital ko ci ne ko laajal yàlla fa seytaane nekk nga sàkkal ko pexe ndax ndax ñi mel ñëpp mel ni yow mu ñaan suñu boroom suñu boroom wan ko màndargay seytaane yu mu koy xàmmee ba faagaagal ko ndax kenn du dem feneen fu dul aljanna yàlla moo ne woon ba noppi seytaane innaka min al munzarina ila yawmi al waqti al maalum fii ak nit a ngi fi doo fi jóge waaye fa ko seytaane ma ne mooy fam ne ko ñaanal yàlla seytaane dee te ne fi moom mu ne ko boo demee ja sàngam bés sàngam ñu ko tudde luuma mooy kay jaay nàngam toog barab sàngam téere yi danañ tudd la mu doon jaay garab ga na mu tudd ak nam mu fekk ko fa nuyoonteeg moom yow seytaane xàmmee naa la mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko carfal ne ko bettuma la daaneel ko mu jéggalu ko fekkee ko ci beneen ja jéggalu ko ñetteelu ja ba nag seytaane daan ko dem bay génne paaka bu gën a ñaw ba koo ko yoroon ne ko jëraloo ma rey koo xam ne ñeent fukki at doo ko desee àdduna jëralatu ma rey jógal demal mu génn xoolaat boppam ne ah kon ñeent fukki at ma dese ah suñu boroom moo ne woon laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim ginnaaw ñaar fukki at moo ko dese moom nee na ñaar fukki at yii daf ci tinkiku ndax xaw naa tuskare dëkke woor dëkke julli guddi dëkke xiif ak mar waay way lu ko fi jar ginnaaw dese naa dese na moom ñaar fukki at ñaar fukki na ko na ko def li mu bëgg a def lépp ñaar fukki at day ko des mu tuub ko yàlla jégal ko ndax yàlla lu mu wax dana ko def ndekete ñeent fukki fan moo ko dese mu tàmbali ca la ko neex wala yaxurannakum billahi alxaruur bëgg na àdduna ndax gis na calan-calan ja fi am ak lacc-lacc ji am ci àdduna mu ñee ko waa àdduna ne na na na dund ñaar fukki yi ñaar mu mu jéggalu ko yàlla jéggal ko ndeke ñeent fukki fan a ko desee mu faatu ci cal cal ak lacc-lacc loolu mooy sàggan dem ba xamatul li tax yàlla indi ko fi te bu umpalee boppam day daal di umpale keneen yonent bi tekkee ne ku tegal yetti ajjuma yu mu julli ji wul te ngan ngan ci ajjuma xames na ko kenn du ko sakkal boppam sharia moo naan lii ak lii kum dal jërul nga julli ci aljuma may nañ la nga toog ku dem fa mu dëkk mën na ko laaj ña fa dëkk te borom tey borom xam-xam ku tegal yetti aljuma yoo xam ne amu ca ngant lu sharia nangu niki dooy dal aljuma li koy dal mooy koy dal moom yàlla day day fa tampon ba ne ko tapp ca xolom ba dootu gis dootu dégg te ku gi déggatut waaraate gisatut waa kuy waaraate saa bu ko gisee kuy ñàngal la saa bu ko gisee ku soof la xol ba tëju na ñii góorgóorlu nag bay dem ci aljuma ja nañuy moytu it lu leen ko yàqal te jaare ci te xam seytaane bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ñu tàmbalee xutba bu kenn waxati gis nga bu kenn waxati daa jël la wax waaye daf ne booba ay jembaraay mu nga ci biir jàkk ay doj yu ndaw ndawaan booba melagul nee mu mel fu mu fekk nit it mën na ko faa dund nee na bu ñuy xutba ku laal ab jembaraay képp tuxale ko fa mu nekkoon ndax bëgg fa sujjóot lu bari la muy am ci ajjuma ci ñàkk na ko légui ci suñu jamono loola mën na ko wuutu fàttee fay sa téléphone mu ne car nga bàyyi ne fi ñu ko xut booba làmbutu ba daj ko làmb bouton ya ba xam bouton ya ne ko nii mu ne cal wala mu jël ko taf ko ci noppam ne dama ne si jumaa ji man takallama yowma jumaati wal imaamu yaxtubu aw مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وينين يت كوي جلجي أجمع يت تقول قول لبا أجمع نركو مي جلجي يت بده ما ريك نخال فم تل ريك متوقفة بني جيجي أه يونتبي صلى الله عليه وسلم سين نكو خامن داي جيجي دي نيو جيم سي صاب سي كانام mu ne ko diw àggal suuf yaa ngi lor nit ñi te mënuñ la ko wax li la ko teg mooy dangaa yeex a ñëw te waxoon nañ bu yàgg ne ki jëkk a nangam lay am ka ca topp am nangam ka ca topp am nangam waaye am nañu dañ fay bañ a yàgg moo tax dañuy ne ba yëfee cate ñu soo ko dem ñi nga xam ne it dañoo fekk lu dul benn rakkaar daal buñ ca àndee nañ xam ne am nañ jullit jumaa waaye ku fekk ñuy taaye daal kese kese nag bu jógee na julli tisbaar sëriñ bi moo jàngale woon ci téeréem ne wa qul liman adraka fi tasahudi imaamahu qum wa salaataka btati day yóbbaal jullit aljuma kon bokk sàggan bokk ci ñi sàggan yàlla nañu ci yàlla musal suñu borom mi ngi wax ne bu ñuy jàng alxuraan dee leen déglu tey dég dee leen déglu yang koy deg waye del déglu di ca bolé in instant ne pat laallakum turhamun kallantu dal ne ku ci wetit degut ku jàng alquran nay tuddu yàlla di fàttaliku yàlla di fatli yàlla bopam yàlla du fàtte waye mom mo nan ana sama diggante yàlla di toroxlu ci jotaayam jàpp ne mi ngi jàkkaarloog moom jàpp ne mi ngi jàkkaarloog ku mu jox cër lool noonee muy tooge lu muy waxe mu xam ne yàlla koy dégg mu sàmm ko sàmmin woo xam ne dana sàmm lool bu doon wax ci te fekk kilifte kilifam ñu ngi ci peggam suñu borom rek suba ngone ci yam guddeeg bëccëg rikk waaye bu leen bokkut ñu sàggan ni ku sàggan mooy koo xam ne fàtt na li taxoon yàlla sàkk ko واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يلا إن شاء الله موسى كن بو داغي ديغ ني الجمعة لا ني ديبار تا فاني ليغي جي امو جمعة الاسلام باغنا لول كوي خي سا تيب دك جيم تيب دك تا فك دك دك با امو جمعة تا جمعة وار كو فا موم سكنتو ماك جيم فو خاني امو جمعة فا waye bu loolu weesoo yit bépp liggéey bo xam dañ koy liggéeylu tamit tàmbali aljuma rik nañ bàyyi ba jul ba nit ñi julli ci aljuma ko ñaw la ñoo xañ nit ñi julli ci aljuma ba yalla di ngam bo wé di ko na ci seen xol yalla ñu ci yalla bu sal kon bok bok na ci julli bok na ci aljuma ci bopam it nit ki bareel di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ndax neena aljuma ju nek dañ koy wan diw julli na ci yow nangam diw julli na ci yow nangam diw julli na ci yow nangam biñ ko laajee nag kayfa salaatu alayka ya rasulallah daf ne ba ca gën a néew da nga naan allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamin wala boog nit ki ne allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu seytaane ki bakkam yaxfirullahu lana ولكم ولسائر المسلمين آمين دار بعد